xarit bi rokki mi rokkam la yónneel ko ko Sénégal rokki mi rokkam te njëg gi dafa baax nag. ma ne rokki ma ne seetal. dégg nga li ma la wax fële dama la ne yónnee ko fii moo gën a neex nga yónnee ko feneen. moo tax ma ne sénégalais sénégalaise tout résident en Gambie venez voir Gamposs pour envoyer votre argent ou au Sénégal. réew Gambie jóg leen de Gamposs defati na ko defati na lu baax ci ñun koo xam ne yaa ngi am mbokk Sénégal. wala ngay sénégalais bu dëkk ci réew mi fii tey bu ko yónnee sa njaboot bul sonnati bul taayeeti bul demati fen waaxul daagu ñëw ba gampoos foo dem ci réew Gambie fii am nga fa gampos nga ne ndaw si moo ngi nii xaalis baa ngi nii Sénégal laa koy yónnee kii laa koy yónnee nii la tudd fa la la dëkk mu jugal la ko ca biir muy àgg mu ne ko rokki mu ne ko rokkam mu jox ko xaalis bi te la ngay fay du fay yomb ba dee moo gën a baax bu leen demati fennaa ah. waaw ñu ne Sénégal nag ku ne Sénégal te bëgg a yónnee sa mbokk xaalis fii ci Gambia demal ca la poos mu jottali ko gam ñu jottali ko sa nit ki jeex na tax c'est vrai Jollof Tutors, where every student is a tutor and every tutor a student.

am na Money Express am nañu Ria anju ba koy na ah eh eh ah jàkkaarloo yéen ci biir réew mi joxante loxo lu bees judd na ci biir réew mi lan a judd dimbalante lan a judd lu ñuy wax club foire club foire ci biir réew yi Gambie gii kañ la judd ba mu juddoog léegi mu ngi am juróom benn weer lan a ko tax a ñëw dimbali ñi nga xam ne ñooy liggéey nekk ci suuf mu dimbali leen nag ba ñu jëm ca kanam dama ne club foire oote na lan la oote usine kalatiina ak lan façon soo mooy njëlbeen nag ñu koy def kañ lañ koy def nag ñu ngi koy def fukki fan bi fan lañ koy defee Kayraba bi hôtel lañ koy defee mu ngi tàmbali juróom-ñetti waxtu waaye kan lañu oo kan lañu oo Fatou Guewel Diouf ca Dakar moom lañ oo ànd ak tam Saamu Suusoo mii way mu neex ci biir réewi Gambie fii dama ne toog rek seetaan lekk ma suur naan ñaata la platine forty Go take it out, sir. silver 20000 waaye nag du ko ca biir rek toog seetaan di ticket bi 1500 la kon nag lépp loo xam ne club foire am na ko ci lii daf koy jël nag yóbbu ko ca léebo woot ba ak Royal Victoria Teaching Hospital dimbale ko waaye mu ne damay jël nag la ma fa am yóbbu ko ca fan opération Save the Baby bi nga xam ne bii nag suñ kilifa gu baax gi foos le moo ko taxawal ci biir réew mi kon club foire jóg na jigéen ak góor jàppale juróom-ñetti waxtu dina xumba dina neex ku la foire oote ma ne ku bugg a bokk demal baax ba dee lay def ci yéen neex ba dee lay def ci yéen tey ku la foire ci biir réew card registration man sago moom moyra sim card register prin kam sellem bank après sellem bank comium qsel ikoya be eh, registre boy jode hani peng ita fen jol fen to jolaje o ka ke nyaadi mi bita sim card registration ikoy fangoy dayre telephone o kala de i fangola bita mi bita ya id card o sama biometric id card kutama kutama dade jel walla passeport o walla voters card walla ila driver ni nin luntang la muti banko la siran kay don beru ja aliens card walla ila banko me bota ja passport ina wada mala dira jor seje teng pri o oh, kuma yata ba maringi na nta fana ni na dimbal be sirgistan o nyun ko yow bari ku gulen bayar e ko momo mo lulu bo la registano ne rogo ne rogo adu ni be momo registala isalon de ni malom ay pengo penke itele tam adu sidno registano me ma sayta ni seyosi faje na ka sayta ni seyoso anin ke ba ko to be so kayitata e ɓuuru e siwol ɓe sama mairol nen keɓargol ɓe aɗum fana aman jere ɓan nan dambiɗa kana jan iɓe dawaɗa itu jibina e batarlaje iɓe interlaje cew nana def ñoom rek alhamdulilah ngeen laa jógee nii ah waaw te nag seen fii lu fi xew mooy sim card registration mbooleem dooree ko gamsel layn nga amee officiel comme yom ba kiwsel nga registré soo ko registré am na looy yóbbu de. mooy lan da ngaa yóbbu sa passeport ah mbi de sa ID card ID card bu es bi laa wax de biométrique ID card ah driving license. ak sa voters card. wala su fekkee doo waa dëkk ba sa alien ID bi wala sa passeport yi waa dëkk ba. amul fay amul fay free la free. amul dara looy fay moom neex na waaw su ma caamee waaw ngay wax ni lu am solo la de mhm. ndax man a suma njabooti mun nañ register network bu nekk mun ngaa register juróomi nit te mooy maire yeeg paa ñoo xam ne amuñ kayit wala xale yoo xam ne amuñ eighteen years mun ngeen a register waaye sooy register tamit nga seet koo register de soo register koo xam ne mu ngay jël sim card bi di fa def dara lu ñaaw yow la ñoo jël si su boobaa nag nga xam ñi nga register maire yeeg paa yi amuñ kayit ñoo xam ne xale yoo xam ne amuñ eighteen years suñu amee eighteen years ñu dem register seen boppam su ma jàmmee jërëjëf jërëjëf jërëjëf Birame Lucozade Energy, energizing Gambia. suma bopp bi taju na jaaxle naa xaw ma naka def dugga naa génn naa eeg naa naa dara mënu ko sotti man jaaxle naa lu xew waaw li xew xamuloo ko di dugga naa génn naa wàcc naa suma te sani dalay jeex nañ munu maa fexe fexe be am li ma soxla waxtu wi waroon naa fekk xale yi yónnee xaalis bi bu yàgga waaye dara mënut a sotti dara waay waay waay lii man xaw ma lii mooy lan hello góor gi Thierno man la maa ngi nii xaalis bu jotee bu jógee bitim réew ah suma doom jël <laughs> Africa Transfers réewi Gambia dama By wàcc in a ci biir Africa Transfers bring change money transfer ak fu waay mun a ne ci àdduna si so buggee am lu la noppal ci mbirum yónnee a jot sa xaalis demal Africa Transfers fii la yónnee xaalis sampee mbaax te saa yoo jëflanteeg ñoom ñu la ba neex a neexal yu duuf te am solo 56 Karaba Avenue ku sopp li may def la cax na ba damay liggéey te duma tala lekk waaye bi may waaj liggéey si suma jabar nee na ma nijaay añ sir tey amal naa la lu neex baax na waaye bi ñu agsee kër ga fekk nañ soxna si ci waañ wa muy ëlbati cin li biñ xamee ne maalo la mer nañ toog ci saal bi di seetaan télé waaye ciy ba ñu xet ba duggee lan lañ taabul bi ci diiru benn minute cey bi añ bi yegg see Xasan jeexal na ñaari palaat Binta lekk ba màtte làmmiñam ba man nag lekk ba caalit maalo bi mooy maalo sa kan amut pënda te amut gom ku ci bëgg a xam lu leer wooteel 42 76 34 392 maalo sakkan maalo bi gën ci maalo yi. conjunctivitis commonly known as Apollo